yal na ko buur bi subhaanahu wa taala nangu te mu ñu ko waaye lépp loo xamante ni itam def nañ ko ci ay njuumte ak i ñaawteef yal nañu ko buur bi subhaanahu wa taala jéggal di ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala yal na leen yàlla buur bi subhaanahu te suturaal leen te aar leen yal na leen yàlla defal jàmmi biir ak jàmmi biti lépp loo xamante ni itam yéen a ngi koy yootu ci ngëneel yal na leen ko yàlla jottali bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp loo xamante ne yéen a ngi koy ragal itam ci fitna ak ci musiba yal na leen ko buur bi subhaanahu wa taala jëñal di ñaan bokk yi nga xamante ne ñu ngi liggéey yal na leen yàlla defal barke ci liggéey bi ñi koy wut itam te amaguñu ko yal na leen ko yàlla yombalal ñu ngi ñaanal borom kër yi itam yal na leen yàlla yombalal dépasse yal na leen yàlla yombalal lu ñu mën a yoree ji ñi bëgg am soxna amaguñu ko itam yal leen ko yàlla yombalal waaye di ñaanal jigéen ñi nga xamante ni itam toll nañ ci am borom kër itam te amaguñu ko yal na leen yàlla may koo xamante ne ku gën la ci ñoom. koo xamante ne dina am seen yërmande koo xamante ne itam dina leen taxaw te aar leen wa ma zalika bi aziz képp koo xamante ne itam yaa ngi am looy jàmbat ci biir wala ci biti yal na ko yàlla saafaraal waaye feebar ñi itam yal na leen yàlla yëkkati ba ñu nekk ak seeni sago waaye daw itam yal na yàlla teg ci ñoom yërmandem bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa tey nag mbokk yi suñu temu tey mooy analan mooy diine ak ndax itam ñu bari li ñu jàppee ne mooy diine ndax loolu mooy diine ak itam ñaata diine moo am yi nga xamante ne moo wàcce ci kaw asamaan buñ ci pare itam daañu waxtaanee man huwa al muslimu wa man huwa al mu'min ana kan lañu tuddee muslim ak kan lañu tuddee mu'min daañu waxtaanee itam diine yi an lan moo nekkoon seen dayo maanaam seen objectif lan la objectifu diine yi ak lan moo nekkoon wu yonente yi bu ñu xoolee ci jamono bi ñu nekk kenn ku ne yaa ngi fëgg sa dënn di wane ne li ma nekkee daal mooy li nga xamante ne mooy dëgg bu ñu xoolee ci suñu mbokk yi yahut yi ñoom wax nañu ne ñoom ñoo nekk ci diine bi nga xamante ne diine dëgg la kon àjjana daal ñoom ñoo ko yeyoo nga ñëw ci itam suñu mbokku nasaraan yi ñoom itam jàpp nañu ne li ñu nekkee mooy diine waaye itam àjjana itam ñoo ko gën a yeyoo keneen ku dul ñoom nga ñëw itam ci suñu mbokku jullit ñi ñoom itam jàpp nañu ne diine ñoom ñoo ko yore keneen ku nekkul ci li ñu nekk itam nekkoo ci dara waaye itam àjjana itam ñoom ñoo ci gën a yeyoo kenn ku ci ne daal yaa ngi samp li nga xamante ne moom nga nekkee nañ xool buur bi subhaanahu wa taala lan la ci wax bu ñuy xool suñu borom subhaanahu wa taala wax na ci alquran ne qaalatil yahuudu laysati nasaara ala shay'in buur bi nee na ñi tuddee seen bopp yahuud nee nañu ne nasaraan yi daal nekkuñu ci dara waaye itam wa qaalatil nasaara laysatil yahuudu ala shay'in waaye itam nasaraan yi nee nañu ñi nga xamante ni ñooy yahut itam ñoom nekkuñu ci dara kazalika qaala allazina laa yaalamuuna misla xawlihim waaye ba tey rek am na ñu nekk ci diggante bi te mooy ñi ñu tuddee jullit ñi ñi xamul ci ñoom nee nañu yëwuti nekkuñu ci dara nasaraan yi nekkuñu ci dara waaye ñoom ñoo nekk ci dëgg moo tax borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw bi mu leen dégloo ñoom ñett ñooñu ñëpp muy yahut yi kenn ku ne di kañ sa bopp ne man maa nekk ci dëgg ñeneen ñi ci des nekkuñu ci dëgg nasaraan yi itam wax nañu ko ne ñoom ñoo nekk ci dëgg waaye ñeneen ñi nekkuñu ci dëgg waaye ñun ñi jullit ñi itam wax nañu ko wax nañu ne ñun ñii ñoo nekk ci dëgg waaye ñeneen nekkuñu ci dëgg ndax ñun jaam yi ñun ñooy àtte wala li nga xamante ne moom lañu yaakaar wala li nga xamante ni itam moom lañu foog ndax dëppoo na ak buur bi subhaanahu wa taala li mu jàpp loolu mooy dëgg moom mi moom diine waaye itam moom mi moom jaam yi ana lan la jàppee ne loolu mooy diine moo tax buur bi subhaanahu wa wax ne laysa bi amaaniyikum wala amaaniyi ahlil kitaab man yaamal suuan yugiza bihi borom bi ne daal mbir yi du nu ngeen ko yaakaare waaye itam du nu ngeen ko fooge yéen yahut yi wala yéen nasaraan yi wala yéen jullit ñi kenn ku ne daal mbir mi ni ko jàppee ne noonu la wala na ko foogee ne noonu la demewul noonu li mu leen xamal daal mooy nit ku ne ci yéen képp ku ci def loo xamante ne safaan la bu ëllëgee dinaa la fay li nga xamante ni itam moo di sofaan moo tax ñu mën a xool ba xam ndax ndax li ñu tuddee pas-pas walla li ñu tuddee li nga xamante ne mooy diine dafa nekk mbir moo xamante ne dañ ko war a donn di ko donnante wala dafa nekk mbir moo xamante ne dañu war a dellu ci buur bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ni itam moo ko wàccee bu ñuy xool daal diine du lu ñuy donn diine du loo xamante ne dangay wax ne rek lii laa fekk sama pap walla samay maam ñu koy def kon loolu rek lay def waaye diine mooy li nga xamante ne buur bi subhaanahu wa moo ko wàcceel boppam kon ku bëgg a xam lan mooy diine dangay dellu ci téeram bi mu di alquraanul karim moo tax buur bi wax ne ñi nga xamante ne defe nañu ne diine lu ñuy donnante la yàlla wax na leen ne ci biir alquraan ne wa iza qiila lahum ittabi'u ma anzala allah qaalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aabaana walaw kaana sheytaanu yad'uuhum ila azabin alimin nee na bari na nit ñoo xamante ne lañu fekk seen baay wala lañu fekk seen maam ñu nekk ci ñoom ñu ñëw rekk jàpp loolu mooy diine duñu jéem a seetlu sax ba xam ndax li ñu fekk suñu baay yi wala li ñu fekk suñu maam yi ndax dëppoon ak li buur bi subhaanahu wa wax boo leen waxee li buur bi subhaanahu wa wax ne ñun daal ci kër gi lañu fekk suñuy waajur waaye ci diine ji itam lañu fekk suñu waajur wala ci ngir gi lañu fekk suñu waajur wala ci tariqa bi lañu fekk suñu waajur kon ñun daal ci loolu lañu ne waaye duñu jot seetlu ba xam ndax ngir googu wala tariqa googu dëppoo na ak li nga xamante ne moom la buur bi subhaanahu wax moo tax buur bi leen fàttali ñoom ñépp yàlla mu ngi wax ne inna allazina aamanu wallazina haadu wannasaara wa saabin man aamana billahi wal yawmil aaxir wa amila saalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun yàlla nee daal yéen ñépp ñi nga xamante ne ñi ngi tuddee seen bopp ay yahud wala ñi nga xamante ne ñi ngi tuddee seen bopp ay nasara wala ñi nga xamante ni itam ñooy jullit ñi yàlla ne daal li may xool ci yéen ëllëg mooy koo xamante ne gëm na ma waaye itam gëm na ne bis penc dina taxaw ba kenn ku ne ma xisaab la lu waay def ci lu baax ma fay ko ko waaye itam lu waay def ci sofaan itam ma fay ko ko kon liñ ci bëgg a mooy ana mooy lislaam ak ana mooy li nga xamante ne mooy imaan bu ñuy xool baatu lislaam mu ngi jóg mu ngi jóge ci baatu aslama te moo di wommatu ak toroxlu say cër yépp jëm ko ci buur bi subhaanahu wa mooy nga wommatu ci julli yi julli ñu xam ne ay cëre koy def womatu itam ci koor ñu xam ne koor itam ay cër yu feeñ moo koy def waaye wommeeku itam jëme ci azaka wala aj màkk wala bépp jëf boo xamante ne jëmm ji moo koy feeñal kon loolu moo di islaam maanaam bépp jëf boo xamante ne rek cër yi ñoo koy jëmmal cër yi nga xamante ne feeñ la boo ci wommatoo li ci buur bi subhaanahu wa bëgg ak ni mu ko diglee ñu jàpp ne loolu moo di al islaam mais al imaan bu ñu koy wax mooy womatu bi ngay wommatu jëme ci buur bi subhaanahu wa waaye ci sa biir mooy pas-pas bi nga xamante ne am nga ko ci sa biir ak kóolute gi nga xamante ni itam am nga ci ko ci sa biir waaye itam ak gis-gis bi nga xamante ni itam am nga ko ci sa biiru xel nga saxal ne buur bi subhaanahu kenn la te pas-pas boobu ci biiru nit ki lay ne du feeñ buur bi subhaanahu moom rekk moom moo xam li nekk ci biiru nit ki moo tax baatu islaam mu ngi jóge ci aslama ak itam baatu salaam mu ngi jóge ci aslama mooy wommatu bi ngay wommatu ci sa cër yi nga xamante itam dafa feeñ lépp nga jëme ko ci buur bi subhaanahu wa baatu imaan mu ngi jóge ci baatu amana ci la itam amaana jóge mooy kóolute ak dëgër gi nga xamante ni am nga ko ci sa biir xol loolu buur bi subhaanahu wa rek moo ko mën a yëg ci jaamam ñi ñu ci bare bare itam boo laajoon diine yi wàccee ci kaw asamaan ñaata la ñu ci bari dañu lay wax ne ñett la mooy diine yahud ak diine nasara ak diine lislaam waaye ñu ci bare bare dañoo juum ci li nga xamante ne mooy tontu li moo di dañuy fàtte ne yahud du diine waaye kuréel la nasaraan itam du diine waaye kuréel la lislaam du kuréel waaye diine la kon diine benn la inna diina inda allahi al islaam li wàcc ci yahuut yi lislaam la tudd waaye itam li wàcc ci nasaraan yi itam lislaam la tuddu waaye li wàcc ci jullit ñi itam lislaam la tuddu kon benn diine moo am du ñaar du ñett benn diine moo am moom la buur bi subhaanahu wa wax ne inna diina inda allahi al islaam moo tax diine du li nga xamante ne dañu koy donn boo xoolee ñu baree bare ñu ngi topp diine ci ni nga xamante ne moom lañu fekk seeni waajur nekkee ko moo xam ñu bokk ci benn kuréel wala ñu bokk ci benn ngir wala sax ñu bokk ci benn mbooloo wala ñu bokk ci itam benn tarixa kenn ku ne di saxal ne li ma nekkee mooy di dëgg waay li keneen nekkee nekkul ci dëgg gis nga loolu tax moo tax ba ay xaajoo ak i féewaloo yu baree bari yoo xamante ne sax léeg-léeg day dem ba jur ay xëccoo waaye itam dem ba jur ay rent ci seen biir ndax kenn ku ne yaa ngi bëgg saxal li nga xamante ne moom nga nekkee waaye li ngay saxal loolu yépp ba mu jaral la sa bakkan moo di ngëm-ngëm goo xamante ne yaa ngi ko teg rek ci doon ndono waaye ñoom ñëpp bu fekkonte ne kenn ku ci ne mu ngi tënku ci li nga xamante ne moom la buur bi subhaanahu wa wax kon xëccoo du am kon ñëpp daañu mën a jàpp diine gi benn la waaye yonent yëpp itam yàlla moo leen yónnee waaye téere bi nga xamante ni itam moo di alxuraan itam benn la kon loolu day wane ne rekk képp koo xamante ne yaa ngi saxal kuréel bi nga bokk wala ngir gi nga bokk ba tax ngay xëccoo keneen wala ngay féewaloo keneen loolu lu muy wund mooy danga ñàkk dégg diine waaye itam diine lan ci donn nga ci dégg moo tax itam xaajaloo yu baree bare di am bu ñu seetloo itam li nga xamante ni itam moo di al raaya raaya bi nga xamante ne diina am na ko maana dayo bi tax diina am dayo bi tax yàlla buur bi subhaanahu wa yónni ay yonent dayo bi tax yàlla buur bi subhaanahu wa taala wàcce ay téere nee nañu dayo yëpp ñaari yëf la bi ci njëkk mooy ñépp bokk gëm ko gëm itam li nga xamante ni itam mooy bis penc waaye itam di jëf-jëf ju yiw joo xamante ne dina leen mën a jariñ ci seen àdduna kon gis nga dayoog diine ak dayo yenent yi ak dayo téere yi yépp ñaar yëf la mooy ñu gëm yàlla ak bis penc waaye ñuy jëf jëf ju baax joo xamante ne dana mën a defar seeni àdduna bu ñuy xool diine benn la diine ji yàlla wàcce ci suñu maam ibrahim alayhi salaam ak al ak bi mu wàcce ci muusa ak bi mu wàcce ci isa ak bi mu wàcce ci muhammad salawaatullahi wasalaamu salaamuhu alayhim ajmain lépp benn diine la du ñaar du ñett du ñeent yàlla wax na ko inna diina indallahi al islaam kon diine benn la du ñaari diine du ñetti diine du ñeenti diine bu ñuy xool yonent yàlla yaqub ba muy waxtaan ak i doomam bi mu leen di dénk lan la leen wax falaa tamuutunna illa wa antum muslimun yéen samay doom yi maa ngi leen di dénk bu leen génn àdduna na mu lu dul ngeen nekk ay jullit bu ñuy xool itam Seyduna Isa ba muy waxaat ña ko topp lan la leen waxoon wa is awxaytu ila alxawaariyin an aaminu bi wa bi rasuli qaalu amanna washhad bi annana muslimun gis nga nasaraan yi bi leen buur bi subhaanahu di waxee ne maa yónni yonente yàlla isa ci yéen pour ngeen gëmm man mi seen boroom waaye itam ngeen gëm ko ne sama yonente la bu ngeen ma gëmee yéen ñëpp na ngeen seede ne yéen ñëpp ay jullit ngeen kon gis ngeen nasaraan yi ñoom itam diine bi ñu nekkee moo di al islaam bu ñuy xool itam yonent yàlla Muusa alayhi salaam mu ngi wax ay nitam ne yaa qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin yonent yàlla Muusa alayhi salaam mu ngi wax ak ay nitam muy yahut yi ne leen ne daal bu fekkente ne gëm ngeen yàlla bu leen wéeru ci keneen ku dul moom bu fekkente ni yéen ñëpp ay jullit ngeen kon ñu xamee ci ne ñu ñu tuddee nasaraan seen diine moo di lislaam waaye itam ñi tuddee yahut seen diine moo di lislaam waaye itam ñi nga xamante ni itam ñooy jullit ñi seen diine itam moo di lislaam